di indi rek ay cant ak i ngërëm ci lii nga xam ni moo ñu fi dajale te mooy waajal màggalu Mbàkke Kajoor te ñu wax ba tàyyi màggal gi lan moo ko sabab mooy fàttaliku bisu Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul bi mu gënee àddina kenn ku nekk xam na sëriñ bi bi mu yeesalee sunna seydina muhammadin alayhi salaatu wasalaam ci mbàkke kajoor te muy yoonu jaayante te ñu jaayanteeg moom ci mbàkke kajoor nekk ñeent fukki góor sëriñ bi ñibbi mbàkke bawal ba sañc daaru salaam ba sañc tuuba keroog bi cheikh mouhamadul amin feeñee da leen ni li ngeen doon wut ci seen boroom lépp gan gi ñëw andil na leen ko moo taxoon bu njëkk ñi ngi daan màggal bis bi cheikh mouhamadul amin baara génnee àddina waaye Cheikh Saliou wax Cheikh Sidil Mokhtar ni ko bis boobu bisu tawféex la bisu ndimbal la bisu faj aajo la kon nañ koy fàttaliku kon bis boobu gouverneur moom lañuy ñuy fàttaliku kon nag tey Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baara am na yaakaar bu baax ni salle bi miin na may wax ni bu ngeen gisee sëriñ Moustapha sëñ bi tànn ko tànn ko ndax mooy doomam daf ko tànn ndax sëti cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp mooy seen mag mooy seen xalifa yàgg naa ko wax ci salle bi yaakaar naa booy na ay nopp la tax ma ko doon wax nag tey ñëw na tey mooy cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon monsieur la gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci yi nga xam ni dañ ko soxla ci màggal gi te bi ñu defee CDD bi li xew ci suñu kew xew te mooy sëriñ bi génn àddina gis nañu ni suñu ñëwul woon fii waxtaan ak yéen li war lépp di ngeen ko def ndax bind ngeen ay leetar fu mu war a dem dem na fa waaye jox bis bi gëdd ak jox ko ak xam moo tax ngeen ni lu mu xat-xat nañu ñëw def CRD bi moo ñu fi dajale tey kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ci turu famille bi yëpp man nag may sant yàlla bu baax subhanahu ko taala ndax ndigal daf ma boole nag Cheikh Sidi Makhtar muy sama waajur 1993 may nekk ak moom di ko jàppale mu may yónni ci liggéey bi du ko ñuy jàppale sax waaye mu may liggéeyloo may ànd ak moom ba 1980 ba 2010 mu nekk xalif Cheikhul Khadim ñëwee di ànd ak moom balab ñu santoon lépp suñu waajur santoon ñu ko ci moom ñu def ko ci jëmmam ba Cheikh moom Moustapha keroog bi mu wàccee liggéey daf ma ni. man de boo fi masee yàq wala nga wax fi loo war wax man Moustapha mosuma koo xam kon nag maa ngi sant bu li nga xam ni yàlla dimbali na ma ma liggéey Cheikh Sidi Moussa Cheikhul Khadim Touba ba mu wàcc liggéey mu ma ni man am naa conscience tranquille ndax làq naa nga moom keroog itam li Serigne Sidi wax bi ñu weesoo juróom-ñetti fan yi sëñ Moustapha daf ma woo ci biir ñu waxtaan ma ni ko ce ce ki fi nekkoon moom woon lépp tegoon ko ci suñuy loxo tey say rakk nga ko seqal ak say nawle nañ woote waxtaan xool kenn bu nekk la nga ca war a yor nga yor ko lépp nekk benn. moo tax Serigne Sidi ba ñu wootee réunion ma ne man du ma dem parce que bëgg maa dem di leen seene naa toog sama kër ñu xool li ñuy dogal dogal ko ngir ma bañ leen ci seene moo taxoon ñëwuma bi ñu waxtaanee ba noppi. daal di ne Cheikh Thioro la ko Cheikh Sidi defoon ak fa mu ko tegoon foofu lañ koy tegaat kon man may sant yàlla yéen yi samay bokk di samay mag bu ngeen amee ci man kóolute ba doy loo maa ngi ñaan yàlla sama borom nag ma doy naa yéene insha allah musuma wax lu yàqal nit ci Cheikh Sidi Maxtaar ko def fas naa yéene itam loolu du ngeen ci man kër Cheikh Mouhamadou Bara nag amuñu lu dul moom moom moo ñu ñor moom la ñuy liggéeyal may wax ñépp ñu dal ci seen xel incha allahu dinañ taxaw takk suñu ndigg ba kër gi gëdd gi mu amoon te mosu koo ñàkk gëdd googu yokk te lii moo koy firndeel ndax buntu kër yi Cheikh moom leen bari yëpp mi ngi nii toog kon nag man may wax rek sëñ siit ñu may ma ko coow yi fi am lépp loo xam ne dafa jëm jëmi Cheikh Thioro kooku moom alhamdulilah rabbil alamin dama koy barkeeloo tey jéggal képp koo xam ni wax na kàddu bu ñaaw jëm ko ci sama jëmm su ñu amee lu ñu naqari mooy kër Cheikh Mouhamed Bara gi nga xam ni dafa am ñu jël ay kàddu di ko ci jëmee te lépp di seytaane waaye nag ku xam sëñ Bara xam ni ko yàlla may xam ni ay mbiram jar naa def nag kon ñu ngi sant bu baax di gërëm loolu rek laa bëgg a wax incha allahu nag li ñu fi tëral nekk ak gouverneur nekk ak autorité yi ñuy sàmmonteeg sàkku ci ñi nga xam ne dañuy màggal si charte yi fi tëral yëpp ñu sàmmonteeg moom képp koo xam ne da nga yor sa oto nga bañ ko surcharge ku yor jakarta nga bañ ko faa indi lépp lu ñuy tere te duwaan di ko tere te amoo ci droit nga bañ ko dugal ci oto di ko indi Mbàkke Kajoor ku koy def itam des na ko jëflante ak yow ñu xam ne màggal nga itam man a wat matukaay yu ñu ci war a jël des na ko fi jël képp koo xam ne da nga ci bëgg a indi désordre des na ko jëflante ak yow ak koo mën di doon ndax dëgg kenn du ci masla dëgg kenn du ci masla kon monsieur le gouverneur maa ngi sant sama cant bopp ndax màggal gi ñaar fukki ak juróom ma koy jiite dara mosu cee manqué lépp lu nox nekk ci loxol état dañ ma koy jàppandal ba def ca loo xam ne sax dañuy wax ni ëpp na ndax daaw oto yi bi ñuy dellu ñëpp yóbbaale ndox dara mosu cee manqué kon maa ngi leen di sant sama jant bopp di ko sant say kilifa ministre de l'intérieur premier ministre président Macky Sall di ko ñaanal bu baax itam ndax gis nañ njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kóllëre gi mu am ak ñoom ak kóllëre gi mu am ak njaboot Cheikh Mouhamadul Amine mi ngi koy sàmm te dugal na loxoom ci njaboot gi dugal na ko ci màggal gi. màggal gi incha allahu fukki fan ak juróom la la 15 février lañ ko daan lañ ko daan defee dañ koy def ci Mbàkke Kajoor le 15 février mooy màggalu Mbàkke Kajoor nañ ko daan defee itam dara du ci soppiku lépp incha allahu nañ koy nañ koy defee. ñu xam ne itam ni dafay dëppoog ñeent fukki guddi sëriñ bi ñu sàkk ñëpp ñëw ci. te li ñu koy def nag mooy njàngum alxuraanul karim la ñu sàkku ci ñëpp ñu def ko léegi itam Serigne Sidi mooy président comité pilotage bi ma bëgg a fam numéro téléphone joxe ko képp koo xam yaa ngi ñëw soo mënee jokkoo man baax su mënut a jokkoo nga jokkoo ak moom 77 la 637 68 0867 637 637 0867 637 08 37 mooy numéro 67 637. 08 67. 08. 67 67. kon monsieur le gouverneur ma yeesalaat rek ngërëm yi ak cant yi xam naa damay góorgóorlu rek waaye sama xol xaw na sori. Mm, mm. sori na waaye du tey ñu dëgërlu li suñu bi bàyyi woon ci ñu rek ñu dëgërloo ko sant leen bu baax gërëm leen li ma ko daan waxee ndax màggal gi suñu ko tegee ci sama loxo te dara mus cee yi yàlla ak yéen la. ñun nag ñi ngi fab suñu loxo tey lañ fab suñu loxo gën leen ko tàllal tàllal fa suñu yéene itam kër Cheikh leen Bara dara di ko lu ruur wala dara di ko di ci yàq loolu moom insha allahu danañ ko fekke du ñun duñ wax duñ ko fekkee duñu may kenn di ko def suñu àddina suñu dund mooy moo Mouhamadou Lamine Bara balañ koo xamoon Cheikh Sidi Makhtar bi ñu nekkaloon mu nekk xalifa général de Mouride bu fekkoon ni nit dina nekk xalifa général des mourides ba yàgg nga bàyyi keneen nekk ko su ko keneen nekk tamit dund kenn duñu gis feneen dafa fekkoon ni dañoo nekkoon doon liggéeyal Seexul Xadiim Seex Muhammad Lamin Baara ba Seexul yi fekk si ñu ñu ànd ak moom ci biir liggéey boobu waaye la ciy biir kër Seex Muhammad Lamin Baara mooy liñ ci ñor ba tey nag loolu mooy ñu taxawaay kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gouverneur di sant la presse ni ko sëñ si di waxee ndax wax dëgg yàlla lépp lu ñuy nekk ñu ànd ak ñun ci liggéey bi euh, kon ñu ànd ko rek dañ ko doon àndee bi barakati rasulillah alayhi salaatu wasalaam bu tedd bi Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa waat ñi fi teew yëpp jiital ci sang yu tedd yi teew te toogal fi famille wu Serigne Mouhamadou Lamine Bara di wax rek ne CRD tey bii wax dëgg yàlla euh, xool yëpp tooy nañ xool yëpp tooy nañ euh, ndaxte bu yàggul rekk la ku màgg ku nga xam ne nii dayoom ci wàllu baatin dayoom ci wàllu xam-xam day ci wàllu dajale nit ñi waxuma sax tarixa mais dafa weesu woon moom tarixa umma bi la doon liggéeyal umma islamique bi yëpp ku nga xam ne nii daf daan ñaw ku nga xam ne daf daan daf daan dajale bu yàggu rek vraiment lu ñu lu ñu dëddu wuy ji suñu boroom donc tey jii suñu organiser CRD bi xel yëpp dafay dem ci moom xol yëpp dafay tooy kooku mooy sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke radiallahu taala anhu doon fi xalif général des Mourides doon aussi xalif sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mu dudd nag mais mën nañ wax ne sax mi ngi fi ak ñun ndaxte même bu ñuy jën bu ñu gisatul jëmm ji li mu fi doon digle mi ngi fi lim santaane woon mi ngi fi je crois que bu ñu ci jaaree rek mën nañ wax ne mi ngi toujours ak ñun te comme ni moo la ko waxee woon rek ci bi ñu présenté njaal mooy euh, nit ku liggéey la rek liggéeyal suñ boroom ba wàcc ah suñu borom aussi woola na la kaay añ si loolu rek la ah, ñuy ñaan yàlla foofu noonu gënal ko fuuf mu jóge yàlla yokk ko leer foofu mu tëdd te sedd ñu ci barkeem ah màggal gii nag ñun def nañ ko muy suñ màggal plus que yeneen màggal yi ni mu mel ci ñoom ndax li ma la wax léegi li ñu liyee woon ak xalif bi xalif général wax naa la ko dem fi mu ñu tegoon parce que ñun honneur la woon pour ñun suñu région moom mi mu am fi dëkk muy Mbàkke Kajoor juddoo fi en même temps mais honneur la woon aussi ci ñun ñu koy jege mu ubbil ñu bu baax bu baax a baax a baax boppam ba euh, màggal gi lu mu xatoon xatoon bu daan bu daan recevoir nit ñi ñun bu ñu ñëwee sax foofu noonu mu doon recevoir ñun dañ ñu ubbil ñu dugg ci biir. rax ci dolli aussi man personnellement aussi daanaa daanaa ko seeti yow ko mujj seeti maa ngi ko seeti fii ci tawféex ànd fa ak sama njaboot vraiment ñu dem fa waxtaan ak moom du yàgg mu ñaanal ñu ba léegi image boobu ba léegi ngi resté wax dëgg yàlla loolu lépp rax ci dolli ñu jot nag ay instruction yu yu ferme jóge ci kaw dalee ci président de la république premier ministre ministre intérieur pour nañu ni ñu leen doon jàppale nañ leen jàppale lu ko lu ko raw pour kër màggal gi nga xam ne mooy premier màggal bu nga xam ne ni moom nañu xalif bi woon gannaaw duñ sentir dara dara dara luy niroog luy manqué ci organisation parce que nañ ko yéene te ñu ngi ñaan yàlla mu dimbale ñu ci ba tax na ba euh, CDD bi préfet département Kébémer mu Diop Ka présider woon te euh, le 10 ñu waroon def CRD bi far li yàlla def le 10 mu tombé ak sëriñ bi dudd ñu basé woon ñu waxtoon nañu ak yow ba basé woon ci ne lettre yi ñu bindoon yëpp. Euh, recommandation CDD bi dañ ko transformé en lettre waaw lettre yooyu ma teg ko sa loxo dañ ko transformé nu en lettre lettre yëpp actuellement yegg na fi mu war a yegg ministre intérieur aussi dana ci jàpp pour que vraiment ñu ñu def suivi bi pour que liñ ciy demandé yëpp ñu am ko yow aussi dafa naa ci copie yooyu tam nga dox ci li nga ci war a dox donc mooy lettre yooyu mais nag Euh, lii dafa nekk lu nga xam ne mënul ñàkk muy CRD bii bu ñu ko defaloon sax ñu laaj ñu ko ne serait-ce que ñu à la tax ñu war a tenir CRD bi ni am nañ naqar waane nag fañ ko doon jaarale rek nañ ko fa jaarale ba bu kenn remarqué ne am na manquement moo tax ñu def CRD bi CRD bi nag li ñu ci décidé bu soobee yàlla dinañ ko topp lu jëm ci sécurité lu jëm ci ndox lu jëm ci éclairage lu jëm ci sécurité alimentaire lu jëm ci affaire assainissement lu jëm ci wér-gu-yaram et cetera et cetera bu soobee yàlla bëgg nañ ci ànd ak yéen ñu ngi gërëm yàlla nag bu baax a baax a baax a baax di leen sant ci kaw bi ngeen créé nag maintenant cette fois-ci benn comité ko bu coordonné carrément magal donc chef de service yëpp dinañ jokkoo ak man mu ko ak coordination bi jokkoo ak yow en tant que porte parole pour que li ñu ciy décider yëpp bu soobee yàlla ñu mën koo ñu mën ko ñu mën ko réussir. dama bëgg rek bala maa jeexal insister ci benn aspect muy wàllu sécurité routière loolu euh, ndaje yu mel nii saawu amatee désormais rek ñun dinañ ci profité wax du ñuy tàyyi nag di wax du ñuy tàyyi di wax ndaxte ku fekkee. bésu le 6 décembre préfet préfet Kébémer xam na ci le 6 décembre bi accident bi amee fii diggante Sagata ak ak Kébémer ak Sagata nga xam ne ñaar fukki nit ak juróom tëdd ci ñu jéem a xool fu ñu leen di yóbbu bu fekkee bés boobu rek da nga xam ne oto ku ci nekk ci ci ci ci xew-xew yu mel nii war nga def ndànk war nga def ndànk bu baax moo tax appel bi moo koy jëmalee ci transporteurs yi di ko jëmale ci chauffeur si pour que ñu def ñu def tànk def ndànk terewul a yegg fa nga jëm gendarmerie nag les forces de défense et de sécurité instruction yi ñu jot ñu ngi koy appliquer bu baax mooy danañ jalonné route yi ah def surveillance def contrôle mais nag mënuñ fees del del del del route bi ba foo toll rek gis leen ay ay points lañ leen di placer mais nag mënoo. soo leen séenee wàññi boo rombo romboo yokk mënul ne soo leen séenee wàññi tegg sa tànk boo leen romboo rek accéléré loolu mënul ne nañu wàññi euh, ku nekk yaa war doon sa mu bopp xam na même bu la gendarme contrôlé wul aussi nanga nga xam ne yàlla mi ngi lay contrôlé parce que ay bakkanu bakkanu aadama doomu aadama nga yeb te yàlla moo leen bind nga xool ci suñu borom bopp nga daw ndànk daw ndànk dal ndànk mais je crois que boo dawee ndànk sax mën nga bañ a dal mën nga bañ a dal loolu daal dinañ ko fi wax encore une fois lancé appel bi di wax presse bi appel bi nañ nañ ñu ko gën a nañ ñu ko gën a nañ ñu ko gën a lance nañ ñu ko gën a euh, vraiment propager pour que vraiment ñu def ndànk bu ñu ko defee rek bu sob yàlla yàlla ñun ñëpp dinañu musal ñu dem ñu def màggal bi ci jàmm euh, jeexal ko ci jàmm Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu.